sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal حق البكاء على سادات أمواتي تبكي الأراتي عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواتي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 laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajcalhu zaakiran wa shaakiran abad wajcal kalaami raasidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe ngi leen nuyub lislaam bi gën di la nuyu nuyub lislaam bi gën a tedd waaye di la nuyu nuyub lislaam bi nga xam ne jàmm la feese dell aw la feese dell yërmande la feese dell barke la feese dell joo ne ñi ngi leen koy ñaanal suñu boroom bi subhaanahu wa taala muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk xaadim ning moom moo fas yéene ñëw di ànd ak yéen ci bind boo xam ne day aju ci téere bi nga xam ne benn la ci téere sëriñ bi radiyallahu anhu euh, di ashaykhul xadim yal nañu ko suñu borom fayal ñu koy def nag ngir jëfandikoo ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa ji mu wax ne ballixu anni walaw aaya na ngeen ma jottali doonte ne ab aaya la sax na ngeen ko jottali sama woote bi sama woote bi na ngeen ko jottali doonte ne benn aaya la li nga xam ne moom la ma suñ borom yónni ku ngeen ko mën a jottali na ngeen ko ko jottali doonte ne benn aaya ma gis ne noonu nga xam ne noonu lañu ñu war a jottule euh, euh, li nga xam ne mooy woote bi yonente bi alayhi salaatu wassalaam noonu it lañ war a jottule li nga xam ne mooy woote xaadim rasul bi mooy sëriñ tuuba radiallahu anhu te loolu mënuñu koo jaare lu dul ci jàng li nga xam ne mooy Euh, ndono yi nga xam ne moom la fi bàyyi waaye jàng yi nga xam ne mooy téere yi nga xam ne moom la fi bàyyi waaye jàngatandoo ko ci suñ biir waaye képp it loo ci xam nga génne ko ngir jariñante ci ak taalibe yi waaye ngir jariñante ci ak jullit ñi ñépp euh, kon téere boobu nga xam ne moom lañ bëgg a ànd ak yéen moom la sëriñ bi taalif tudde ko nahyu qadaa alxaaji fi ma min al adabi al murid yaxtaaj muy téere boo xam ne sëriñ baa tudde yoonu fajuk aajo waaye it ci li nga xam ne murid bi soxla na soxla woon ko ci ay teggin kon ni muy faja aajo yi mooy teggin yi nga xam ne moom la murid bi soxla woo di taalibe bi teggin yooyu yëpp sëriñ bi dana ko ko leeral ci biir li nga xam ne mooy téere bi ba teggin yooyu su ko murit bi xamee ba jëfandikoo ko su ko taalibe ba jëfandikoo ko loola moo koy jural li nga xam ne mooy fajuk aajo mu doon téere boo xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu daf ko taalif waaye cosaanal téere ba dëgg-dëgg mooy al axlaaqu wal aadab nga xam ne téere booba ka ko bindoon mi ngi doonoon al imaam addalxaaj yi nga xam ne mi ngi dëkkoon ca réewi naar ya moom moo taarifan téere boobu tudd al axlaaq wal aadab sëriñ bi radiyallahu anhu ci gis gi nga xam ne gis na ko ne mokkal lu ñu way dafa gën a yomb mokkal lu ñu wesar waaye jàng lu ñu woy daa gën a jàppandi ci jàng lu ñu wesar looloo taxaan téere yu bëree bëri nga xam ne mag ñi bindoon lañ ko lu jiitu sëriñ bi sëriñ bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee daf ko taalifaat def ko ay way waaye yokku ca lu bare bare bare bare ngir nit ñi man cee gën a mën a jariñu waaye ngir nit ñi gën koo dëgmal waaye ngir mu gën a yomb ci nit ñi ngir ñu mokkal ko loole bokk na ci li taxoon sëriñ bi wayaat téere boobu def ko mu nekk aw woy ginnaaw ba nga xamee ne imaam boobu ko bindan ab téere la ko defoon mu nekk wesa waaye bokk na ci it li tax mu bind téere bi mooy mag ñi nga xam ne ñooy mag yi taalibe yi dañoo sàkku woon ci sëriñ bi mu defal leen ab yóbbal waaye mu defal leen téere boo xam ne Euh, danañ ci mën a jariñ bu baax a baax a baax euh, sëriñ bi taalifal leen téere bii jox leen ko di seen yóbbal te loolu sëriñ bi leeral na ko ci biir téere bi mu doon téere boo xam ne li muy wax lépp ci ay teggin la jëm mu doon téere boo xam ne li muy wax lépp la jëm ci teggini nit ki digganteem ak ñi nga xam ne ñoom la ko suñu borom booleel ci àdduna muy koo xam ne daf koo mag wala koo xam ne dafa maaseek moom wala koo xam ne daf koo féete ndaw te ñett ñooñu rek ñoo mën a am ci àdduna ñooñu ñëpp sëriñ bi radiyallahu anhu leeral na ci biir téere bi teggin yi nga xam ne noonu nga war a dunde ak ñoom kon ñooñu ñëpp sëriñ bi leeral na teggin yi nga xam ne moom nga war a dunde ak ñoom waaye it leeral na teggin yi nga xam ne moom la nit ki war a dunde ak ay waajuram waaye yi nga xam ne moom la nit ki war a dunde ak li nga xam ne mooy ab sëriñam waaye lépp loo xam ne dafa aajowoo jëfandikoo ay teggin sëriñ bi leeral na ko ci biir téere bi te incha allahu bëgg nañu ci ñëw bu baax a baax euh, teggin nag mbokk yi bu ëpput solo ci li nga xam ne moom la nit ki di jikkowoo itam jàpp nañ ne jàpp nañ ne dara ëpp ko solo nañ ne dara ëpp ko solo ngir ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom moo wax ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq man dey suñu boroom daf ma yónni ngir ma mottu li li nga xam ne mooy jikko yu rafet yi suñu sëriñ bi radiyallahu anhu wax ne li nga xam ne mooy yoon wi nga xam ne moom la fonde fonde ko rek ngir yeesal sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ko fonde ci xam-xam bu am njariñ waaye ci jëf ju baax waaye ci li nga xam ne mooy teggin yoo xam ne moom la suñu borom gërëm moom lay wax ne ussu tariqati al ilmu naafi wal amalu saalix wal adabu mardi ñetti mbir yooyu mooy li nga xam ne moom moo fonde wooteb sëriñ bi radiallahu anhu kon jàpp nañ ne li nga xam ne mooy euh, ay teggin kenn mënu koo génne ci diine ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne loolu moo taxoon mottali buñ koy war a mottali si moo taxoon suñu borom bi subhaanahu wa taala yónni ko kon mën nañoo jàpp ne téere bi moom sëriñ bi daf ko way ngir euh, defal ñi nga xam ne ñooy taalibe murid yi Euh, li nga xam ne moom lañ sàkku woon ci moom muy yóbbal boo xam ne dinañ ko mën a yóbbuloo fu ñu toll euh, sëriñ bi nag tàmbali téere bi comme ni nga xam ne noonu la baaxoo tàmbali am bindam lépp rek mooy daf koo tàmbalee ci basmala muy bismillahi rahmaani rahim waaye toftal ca julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam waaye mbokk yi xam nañ ne mépp mbir moo xam ne dafa am solo nit ki su koy tàmbali war na caa tàmbalee tudd turu yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne mépp mbir moo xam ne mu am solo lu ci yéen bu ngeen koy tàmbali na ngeen ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim wala su ngeen ko ko tàmbaleewul barke du ca ne wala bu fekkee ne am na barke yi barke ba day day manki maanaam barke ba du mat kon sëriñ bi moom li nga xam ne mooy ay mbit li nga xam ne mooy ay mbindam di ay téeréem euh, bu mu ciy tàmbale rek lam lay tàmbalee mooy turu yàlla la koy tàmbalee euh, ci téere bi nag gis nañ ci ñaari bismillahi rahman rahim mu mel ni bismillahi rahman rahim bu njëkk bi sëriñ bi daf koo andi ba pare toftal ci ay lu ñuy wax xikam xikam buñ ko waxee mooy wax ju am njariñ yoo xam ne boroomi xam-xam ñoo ko wax mu am njariñ lool la sëriñ bi jëkk ubbee téere bi ci yenn wax yu am njariñ yoo xam ne ay boroomi xam-xam dañ ko wax ak lenn sax ci ay waxam moom ci wàllu boppam bi nga xamee ne jeexal na foofu nag mu doog a tàmbaliwaat ci bismillahi rahmaani rahim ci noonu ci la dugge ci biir téere bi euh, tàmbali di indi li nga xam ne moom mooy euh, ay way yi nga xam ne moom la way ngir euh, tàmbalee ko téere bi téere bi nag mu doon téere boo xam ne dañuy indi way yi ba pare di indi li nga xam ne moo koy leeral muy li ñuy tudde ab saraax saa bu ñu indee bëy yi di ba pare dañ koy teg saraa ba ci suuf saa bu ñu andee bay li ba pare dañuy teg saraa ba ca suuf ngir lan ngir bëgg li nga xam ne moom la sëriñ bi di jàngal gën a leer ci bopp ki nga xam ne moo koy jàng waaye gën a leer ci bopp nga xam ne mooy sàkku xam-xam kon loolu moom lañ doon laltaayale li nga xam ne mooy téere bi nga xam ne ci lañ bëgg ànd ak yéen bëgg cee dugg kon ñu tàmbali téere bi rek fi nga xam ne fi la ko sëriñ bi tàmbalee mooy wax ne bismillahi ci tudd turu yàlla laay tàmbalee lu may def wala lu may wax samay wax walla samay jëf ci turu yàlla laa koy tàmbalee arrahmaani yàlla mi nga xam ne moo yore yërmaande ji nga xam ne moo daj kàpp fii ci àdduna waaye arrahimi yàlla mi nga xam ne moom kese moo am yërmande joo xam ne euh, ma ngi ko jagleel ñu ko gëm ëllëg yowmal xiyaam wasalla yal na dolli xéewal allahu yàlla ala sayidina ci sunu sang muhammadin di muhammad wa ala alihi ak ay ñoñam mooy waa këram wa sahbihi ak i saxaabaam ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom te gëm ko wa sallama yal na dolli yal na def xiiwal wa taslima tasliman dolli ah, xiiwal kon sëriñ bi foofu la tàmbalee li nga xam ne mooy téere bi mooy dafa tudd turu yàlla ci li nga xam ne moom lay tàmbalee waaye ba mu ca mu julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal ko li nga xam ne mooy jàmm ak xéewal ak mucc ñaanal ko képp koo xam ne ay ñoñam nga mooy ñi aji ci moom ak aw xeetam ñëpp waaye ñaanal ko ñi nga xam ne ñooy saxaaba yi nga xam ne ñoo doon ànd ak euh, moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ne naa doy nañu allahu yàlla wa ni'mate baax na alwakilu yàlla ma nga xam ne moom la ñuy wakilu mu ne innamal amalu ndaka jëf yi kat binniyaati mi ngi takkutoo ci yéene wa innama li kulli mri'in naka ñeel na séppus cem maana waala mu yéen li nga xam ne mooy jëfi nit ki de lépp ñu ngi koy tàkk ci yéene waaye nit ku ne la nga xam ne moom la yéene rek loolu lay mën a am maanaam kon nit ki mënta lépp loo xam ne moom ngay am ci baax dafa fekk nga yéene ko maanaam nit ki su jëfee jëf te yéenew ca lu tamit jëf ja lu mu ak lu mu rafet rafet euh, la nga xam ne moom la bëgg dëgg-dëgg du ko ci am ndax ak sellal amu ca kon jëf ngir mu sell yéene moom mooy li nga xam ne moo koy sellal waaye ngir mu baax yéene mooy li nga xam ne moo koy baaxal mu ne wa fil xikam yi nekk na ci xikam te xikam bu ñu ko waxee mooy wax ju am njariñ mu ne man talaba ku sàkku al amra mbir wajadda te mu góor góorlu ca wajat nee na dana ko am ana képp koo xam ne yaa ngi sàkku mbir te góor-góorlu ca mbir moomee mbir moomee da nga ko am na nga xam ne noonu nga ko bëggee ngir passeef ga nga ca wone ak góor-góorlu ga nga xam ne moom nga ca wone mu ne waman xaraa ku fëgg albaaba buntu ba walajja te mu muur ca walaj mu tàbbi ca biir dana képp koo xam ne yàgg nga taxaw ci buntu di ko fëgg yàgg caa taxaw di ko fëgg te euh, yokkatoo ca nee na kookee day yàgg-yàgg dana tàbbi ca biir fa nga xam ne fa la bëgg a dugg kon foofu li mu la fi euh, bàyyiloo xel rek mooy bu mu bul jàpp ci dara mukk mu métti nga daw euh, waaye ak lu mu mën a lu mu mën a doon nit ki na takkaayoo li nga xam ne mooy muñ waaye na takkaayoo li nga xam ne mooy mën a xaar wa fiha nekk na ca xikam yooyu mu lay wax ba tey ne na man am saka képp koo xam ne jàpp nga anil fuduli walis ay ñaawteef di ay bon bon odda ne limeef na ko min arbaabil uquli ca borom xel ya nee képp koo xam ne takk nga sa bopp ci li nga xam ne mooy ay ñaawteef maanaam jaayante nga ak sa bakkan ba doo def li nga xam ne mooy ay ñaawteef ñu ne kooku de dinañ ko limaale ci ñi nga xam ne ñooy boroom xel ya ñi nga xam ne ñooy aji xellu wa fiiha bokk na ca ba tey man laa yusfitu képp koo xam ne doo merloo nafsahu sa bakkan laa yurdi du gërëm rabbahu boroom népp ne nag képp koo xam ne yàlla dogal dogal na sa bakkan moom lépp loo xam ne moom la gis bëgg ko nga àndale ko ca doo merloo sa bakkan mukk doo juyoo ak sa bakkan ci bëgg mukk lu la sa bakkan ne ay ca nga ne ko ay ca ne képp koo xam ne yaa ngi def loolu na xam ne doo def loo xam ne moom la suñu gërëm suñu boroom gërëm mukk ngir lan ngir ne boroom bakkan moom nekkut loo xam ne day digal nit ki euh, lu ko neex nekkut loo xam ne day digal nit ki lu ko neex waaye moom lu neex ci bakkan bi rek loolu la koy digal nee na wa fiiha bokk ba tey man faala képp ku def macha la ko soob làq ya dana dajeeg macha la ko soof na képp koo xam ne lu ko neex mu def moom daal lépp loo xam ne moo ko soob rek amu ci xelaat amut dara day tëb def ko nana dana def loo xam ne dana ca daje ak lu ko lu ko soob nee na def la xam ne dana daje ak li nga xam ne uh, moo ko soob wa fiiha bokk na ca ba tey man képp koo xam ne laazama taxoona mujaahadata nafsihi jihaad ak bakkanam faaza nee na kon mu texe inda xuluuli ramsihi ker buñ ko wàccee ca bàmmeelam dana képp koo xam ne euh, yaa ngi jihaad ak sa bakkan yaa ngi jihaad ak sa bakkan di ko fekk ci li nga xam ne moo neexut suñu borom di ko fekk ak mooy yàlla di ko euh, juuyoo moom ci li nga xam ne moom lay bëgg ne na képp koo xam ne yaa ngi jihaad ak sa bakkan ci jihaad bi mel noonu day na nga xam ne ker buñ la wàccee ca sa bàmmeel Euh, danga nga texe bu boobaa nee na wa fiiha bokk na ca ba tey man képp koo xam ne taaba topp na ar rasula yonente bi alayhi salaatu wasalaam naa la xel set naa am xay rasuli ngën gi pajuk aajo nee képp koo xam ne topp nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci li nga xam ne moom la ko suñ boroom digal euh, mu andi nee na képp koo xam ne def nga ko de euh, ngën gi faju aajo danga ko am maanaam danga am sa aajo yëpp dana dana faju ndax suñu borom bi subhanahu wa taala moo wax ne man yutii rasula faqad ataa allah kon topp yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy topp yàlla ndax yonente bi li mu fi andi suñu borom moom moo ko jox kon képp koo xam ne topp nga yonente bi sallallahu sa ajo dana faju comme na nga xam ne noonu la ko bëgge noonu nga ko noonu nga ko bëgge waxaala wax na jaamiu haasihi lxikami aji dajale mboolem yi wax yu am njariñ baytan aw bayit waaxidan wali wenn maanaam wenn bayit fii haasal maana ci bii yii maana mu wax ne wa huwa te bayit ba mooy wa kullu man képp koo xam ne saama woor nga anir razail anir razaili walif ñaawteef fa innahu naka moom yuftiru dana doge bil fadaili ca euh, la xam ne mooy ay ngëneel nee képp koo xam ne woor nga maanaam jàpp nga sa bopp jàpp nga sa bopp ci li nga xam ne mooy ay ñaawteef ba doo def ci sa cër yi benn ñaawteef maanaam sa bàkkan doo ci def euh, lu ko neex say bët doo ci xool lu araam sa tànk yi doo dox jëm ci lu araam sa loxo yi doo ci def lu araam képp koo xam ne fexey nga ba sa juróom-ñaari cër yi nga sàmm leen ba defoo ci lu araam nee na ëllëg di nga doge ci li nga xam ne mooy mooy ngëneel yi mu ne nag mubaarakul ibtidaa'i lii lu ñu barkeel ab tàmbali la may muunul lintihaa'i waaye lu ñu Euh, barkeel it ab yeggale la maanaam tàmbali gi barkeel na waaye eggale gi tamit xéewal kese la waaye barke kese la wala woo ñeel na ko ay dan ba tey ziida mu ne yal na dolli faydam ak bëbbal maanaam ay may baytun aw bayit aaxar weneen fii hasal maanaa ci biile maanaa yamzimu dana way maana xawli cheyqihi maanaam waxi sëriñam ba radiya yal na dolli gërëm allahu yàlla taala anhu ci moom wa huwa te moom bay boo mu lay wax mooy dawlatul baatili nguuruk neen saat benn waxtu kese la wa dawlatul xaqi nguuruk dëgg ila saa nee na day dem ba bis mu ne alxaqu dëgg saabitun aji sax la wa amal baatilu ndare ay neen nag mu di ay caaxaan wa in ala doonte ne kawe na fa zaahiqun aji màbb la wa saafilun te aji suufe la nee na ki nga xam ne moom moo waxoon loolu jàll nee na dolliwaat na beneen bayit waaye bayit woowu mi jële ci Euh, maanaam waxi sëriñam bi nga xam ne mooy Cheikh Abdul Qadir al Jaylani nga xam ne moom dafa waxoon ci bayit bi nga xam ne moom la sëriñ bi di wax waxoon na ci maanaa bu mel noonu mu ne nguurug neen day na ngeen xam ne wenn waxtu kese la ay neen benn waxtu kese la mi ngi mel ni benn waxtu waaye li nga xam ne mooy nguurug dëgg te li nga xam ne mooy dëgg te mooy yàgg ne na da ngeen xam ne loolu mooy dem ba bis bi kon mooy li ñuy wax ne lu dul dëgg du yàgg loolu mooy li nga xam ne moom la wax fi mu ne alxaqu dëgg nag saabitun mu ne dëgg nag lu sax la waaye li nga xam ne mooy ay neen nag moom doonte ne kawe na ak lu mu kawe kawe luñ ko kaweel kaweel ne na euh, ci màbb rek lay mujj waaye ñu suufe rek lay mujj kon lu dul dëgg moom euh, du yàgg lu dul dëgg du yàgg kon nit ki war naa fexe ba li nga xam ne ci lay nekk moo xam tey la moo xam ëllëg la mu doon loo xam ne euh, dëgg lay doon waaye mu teg ko ci li nga xam ne mooy dëgg waaye mu sore ay neen bu baax a baax a baax a baax kon xam naa dañuy wàcc foofu suñu kàddu euh, di leen dig daje ci beneen bind incha allah in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ala as-sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi was samawati على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal